tawfiqi illa billahi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax di jiital nuyoo bi ci sëñ Cheikhuna Mbàkke bi nga xam ne moo fi xaadimu rasulullah di ko ziyaare bu baax di ko jox wàcc waayam ah di sant suñu imaam bi kàddu yi rafet na xutbu bi leer na yàlla yàlla may dégg topp di sant jëwri ni jëwri yii di sëñ Moustapha Seck noo koy sant ak mboolem waa daayira jës muy topp ci ginnaaw di sant Mouhamadou Diop Fall imaamu xidma tul xaddi nga xamante ni moo dajale daayira yi ci dëkk bi di sant yi nga xamante ni ñoo fi nekk yépp sant gi nag xam naa lu ñu teg bët la lu ñu teg baaraam la lu ñu gis la waxtu wi daaw dafa amoon lu ñu soxla woon waxoon leen ko di ñaari parcelles yi waxtu wi daaw fekk na jotaguñ ci te yàlla def na tawféex boobu jot nañ ci yàlla dogal ci korite gi leeral naa leen ko ni leen gis ngeen ni ñu ko liggéeyee nii leeral ñi nga xam ne ñoo ci def seen jëf ba tax mu mel nii ak ñi ko taxawee waaye àgguñu woon ci di leen leeral ni mu demee lépp cent pour cent te boo nekkee ay nit ànd ak ñoom liggéey di bokki taalibe fépp fu dara jóge jëm ci barab da leen koy leeral miir bii ngeen gis nii bi ñu jëmee àllarba bii ñu wees daje ñoom sëñ Moustapha ak sëñ Diop Fall waa may bi ñu defee évaluation bi mat na ñetti million trois millions bi nga xamante ni wax naa ne korite gi des na ñaari weer ma woo sëñ Modou Diop Fall ne ko bala ñoo kori bëgg naa kër gi ubbu mu woo bokki taalibe yi waxtaan ceeg ñoom ñu war koo mool moolkat yi fay bu lu bëgg a mat yàlla dogale tabax bi ñu laaj ñu ne buñ ko waroon def war a fay sept cent mille mu waxtaan ceeg bàyyi mu ndaw mag mu ni ko dinaa def mool yi kenn du ci fay dara tabax bi mu seq koog donga yi seq koog ñoom Mamadou Diop Fall seq koog ñoom sëñ Moustapha ak bokki taalibe yi nga xamante ni ñoom iliman ñoom ñëpp ñoo ngi ci gis seen taxawaay ñu def ci seen loxo sëñ Moustapha am ci taxawaay yu mat sëkk ba miir bi mel nii mu mel ak ñoom sëñ xàbbaan yëpp kon loolu bu ñu fi dajee dinañ leen ko leeral ndax maa ngi wax imaam ni ko noonu li nga def di jiite beeg xutba bi ñun dañu koy teewlu ni ko doo ngay teewlu jëwrin moom soññe rek lay def te soññe bi ci liggéey sëriñ Tuubaa bii lañu koy jëmale wax liggéey bi li mu ñu may ak it soññ li jëm ci kanam pour ñu mën cee gën a góorgóorlu ndax su miir bi demee noonu da ngeen gis jumaa ji mel nii fii ak korite des na fukki weer te damaa wax ni gannaaw am na lu ñu semboon daaw muy miir bi yàlla jënd kër yi am nañ ko tabax nañu ko balaa fii ak déwén ñu mën a fexe nu ñu kullee jumaa ji yooyu mooy li nga xam ne moo ne ci kanam ak def fi yeneen ak yeneen ak yeneen kon donga yi nga xam ne ñu ngi wër di laaj bi képp ko ñu dem ci àllarba yi sa ñëpp Mbàkke joxe woon ak jaayante yi ngeen xam ni li ngeen leen di jox fii la dugg fi ci yéen lañu ko jële waaye fi ñu koy def ngeen ko bët kon yàlla na Sëriñ Tuubaa nangu bi nga xamante ni dem nañu ba war a tàmbali liggéey bi ku ñuy wax sëñ Bass Jong moo ñu indil suuf ku ñuy wax Moussa Ndoye bi ñu ko ko waxee nee naa la moo fi wàcce suuf soo xam ne ci la ñu muul birig ku ñuy wax Ousmane Bane ku ñuy wax ñoom Laay Fall bi nga xamante ni mooy murit saadex bi di Baay Fall Laay Fall lépp lu ñu soxla dañu koy jox bu xaalis amulit bu xaalis amee ñu di ko verser ba keroog muy mag ñoom sang wàdd ñépp ñu ngi ci def seen loxo ñoom juga ñu ngi ci def seen loxo bu ko defee sëñ Basiiru jong lii nga xamante ni def nañ ko ci suuf si sëkk ko ñaari camion moo ma ko jox semaine bi ñu génn yooyu lu ñàkk mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi benn benn yooyu ma di leen ci tudd di sant bàyyi ma ndaw mag mi nga xam ne ci kore gi miir bi coono yi mu ci daj moo taxoon mënutoon a ñëw ci kore gi biñ ne suba la kore dafa mujj tëdd sax tawat camion yi ci mujj def mu di ko sëkk di ci liggéey taxaw ci miir bi weer ak genn wàll demul fenn loolu dinaa ko seede dongo yi wax naa leen ni leen kër sëñ Tuubaa gi moo kër gee ca sawu jumaa ja ñooyam moo liggéey ca xel koom ñooyam lépp alali Serigne Touba ñu seede leen ko yéen dongo yi xam ne sunu xol sedd na sunu xel dal na yéen ñi ñu ko seqali tamit sunu yaakaar sunu xol sunu xel dal na ci yéen liggéeyal Serigne Touba la liggéeyal Serigne Touba mënut a neen liggéeyal Serigne Touba àllar bi sa ñëpp du Mbàkke waxoon neewoon naa leen kenn du ko tàbbiwaale safar diggante bi ñu fi doonee jëwlin mu ne ñu sëñ Ousmane teg naa sa sama euh, sa euh, àllarba yi ci sa loxo ndax Baye Youssou Diop yal na yàlla dolli leeram moom laa ko tegoon ci loxoom te àddina continuité rek la ginnaaw demee na noonu na ci soññu donga yi ngeen joxe ko te ngeen jël ko def ko ci liggéey sëñ Touba bi teg ko ci loxo xalifa général yi ba yowmal xiyaamee képp koo xamante ni taxaw nga bu sama maam taxawee sama baay taxaw àllarba ya sosoon jumaa yi Touba ji moog seen àllar ba yeyam bu ñu leen ko fayee seen yoonu àjjana la kon ngeen xamee ko noonu àllar ba yu am solo la liggéey bu am solo la liggéey la boo xamante ne am ramu la moo teg ko ci ñu def ko ci jumaa yi benn la rek kon leen di sant di leen gërëm bu baax dañoo waxtaanoon nag ndax tabaski la ñu bañ kàddu yu gudd ndax cant gi mënoon naa fee ne ba ñuy julli des baar ngir nu sama xol sedde ci dongo yi ñoom Mouhamadou Mbengue Cheikh Mouhamadou Mbengue ñoom sëñ Maajey ñoom ñëpp gis nañ leen ñoom say jaay Baye Fall yi Baye ma ndaw mag sant nañ la sant nañu Baye Fall yi nga xam xamante ni ñu ngi ñuy jàppale ci liggéey bi sant nañu murid yi sant nañu bokki taalibe yi yëpp sant nañu dongo yi nga xam ne ñoo taxawee kër sëñ Touba gi ba mu mel nii ndax démb rek ñëw naa fi laa jullee euh, des baar daje feeg jëwrin sëñ Modou Moustapha Seck mu teg liggéey bi ci ñoom seen xabbaa nag ñoom ilimaa nag ni leen na yi ñëw na chaise yi ñëw na basang yi ñëw boobaa kër gi lépp ñoo ko fi def kon loolu ñoom amal nañ leen ak cant samal nañ leen ak cant bu wér de sant donga yi nga xam ne ñooy taxawee kuréel yi par àllar ba ñuy topp ci dëkk yi di ko laaj donga yooyu nu ngi leen di sant bu baax ndax bu xaalis bi dajee yi donga yooyu tax kon donga yooyu na ñu leen gis na leen Serigne Touba gis na leen jéego yi ngay dox di liggéeyal Serigne Touba loolu Serigne Touba nee na bokkul ci la la yàlla sàkk woon wërsëg wa ngay joxe bokkul ca wërsëg wala yàlla bindaloo moo tax liggéeyal Serigne Touba dana may fan wu gudd dana dolli wërsëg kon na ngeen ci gën a góorgóorlu bu baax ndax dem gi ngeen dem ci kër yi lu ne ngeen di gàkkoon lu ne ngeen di jànkonte te yéen a ngi koy muñ ngir jëmi Serigne Touba. kon yàlla na yàlla fay leen te ngeen wéyalu ba rek liggéeyal boo bëggee yàlla fay la sëñ Tuubaa nee na ba ko Iblis gañee da koo laaj ni ko nooy li baax mu ni ko mbàkkee koy sama yoon nekkul ci moom kuy yeggale laay bañ ndax yàlla yeggale lay fay kon li ngeen fexe liggéey bii ñu yeggale ko kenn ko ci am pas-pas bu ne bu doon fukk bu subaa na doon ñaar fukk ginnaaw suba na doon fanweer ba keroog ñu koy yóbbu bàq rek bu ko defee bu ngeen demee di fa daje ak Serigne Touba noonu ak yéen ak donga yi lépp liggéey Serigne Touba lii lay jariñ dana defe dimbal àddina ak àllaaxira yàlla na yàlla fayal ñu leen sant nañu bu baax sant nu donga yi bu baax sant Mamadou Diop Fall bu baax ak mbooleem waa Xidma ñu ñoo leen di sant baax sant sunu imam bi sant sunu imam bi bu baax sant sunu imam yi nga xam ne ñoo toog sant sunu imaam yi nga xamante ni ñoo topp ci gannaaw ni Mouhamed Mbeng ak Seydina Ousmane bi ñoo ngi leen di sant bu baax ni ngeen nu escorter suñu imaam bi gis nañ ko fu mu taxaw ngeen taxaw fa yàlla na yàlla fay leen ko defee di sant kilifa jataay bi ni sëñ Cheikhouna di sant ndonga li nga xam ne mu ngi dogo ak sidi kabin sëñ Cheikhouna da cee waxoon ay cant waxtaane nañu ko ba ñu laata jóg ca kër ga ba ñu demee sax imaam wax na ni ma ne sëñ Ousmane mu ne ah mu ne boo demee tey boo demee sëñ Fallou kenn ku ne gisoon na ko ak Senghor kon yëkkatil sa kàddu ba tuddaalee loolu am ko ma wax sax ni ma daari kaamil boo demee da nga fay fekk fu photo Senghor sëriñ Touba foo mënoon di féete te ko daf lay fay daari kaamil photo Senghor a nga fa ni fànn kon ñoo ngi lay sant bu baax dem taxawaay yi ngay def ci sëñ Cheikhouna dongo yëpp nga ko defal yàlla na yàlla fay la barkeel la yeggale sa yoon li nga bëgg yàlla may la ko gàtt yi ñuy tabaskee sëñ Cheikhouna ñun la waroon at bu jot yaa koy def bareen bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen jàpp ya nga jàpp ca dongo yi loolu mënuñu koo ñàkk tudd ndax sëñ Cheikhouna Mbacke taalibe yi rek la am taalibe yi Serigne Touba rek la ñu am boo liggéeyalee Serigne Touba taalibe yi lay fay boo liggéeyal taalibe yi Serigne Touba lay fay kon yaa ngi liggéeyal Serigne Touba ak taalibe yi ñoo lay fay cant gi te di la ñaanal yàlla ñoo ngi sant bu baax tey gërëm yàlla na yàlla dooli tawféex bu baax jërë ngeen jëf